dal leen ak jàmm ami site internet bi TV li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañ koy doore kàddu yi nga xamante nag président mooy ci ay mu Sénégal jamono ji kàddu yi nga xamante ne coordinateur national des jeunes patriotes bu Sénégal dal dina koy fësal moom la mu di xam ne rek mooy bu weesoo kaa Ngagne Demba Touré mi nga xamante ne nag nekk na ndaw bu toll ci ñaar fukki at ñeent ginnaaw bu mu defee ab exil rek wutali fi nga xamante ne nag moom mooy ca Mali ci ginnaawam nag am na ñeent fukki ndaw yoo xamante ba tey ci yi nga xamante ne nag moom lañ daal di am ñoom nag ne nañ duñ fi nekk di moo tax ñu préféré rek daal di disparaître nag wutali fu ñu jëm nag jamono mu nu mel ba li nga xamante ne nag moom la def ab déclaration boo xamante ne conférence de presse bi ñu doon def niki fan yi ñu génn rek waa coalition Yewwi Askan Wi Birame Souleye Diop nag la mu ci daal di yokk war rek moo na niki dimaas bi ñu génn nag dañoo jàpp dañoo dégg ne ay sénégalais yu nekk ca diaspora bi nag dañoo amaloon ab liste liste bi nu mel nag ginnaaw bu ñu ko bindee rek ba déposé ko fi nga xamante ne moom mooy ci aéroport euh, ci seen i aéroport ñenn ci sénégalais yi nag bëggoon na ñëw fi nga xamante ne moom mooy ci seen réew rek leen daal di bloqué arrêté leen ba noppi rek ginnaaw bu ñu ne rek dañu dañoo laale ci ay mbir yoo xamante ne rek euh, moo ñeewal boobu la réew ba ñu nekk ba tey rek li nga xamante ne moom la président bu groupe parlementaire yeewu askan wi nekk membre ex parti bii di Pastef nag la mu daal di xam ne rek mooy di kii di Ousmane ko nag mooy seen candidat tey di seen candidat ëllëg te moom lañ fas yéene jëñax rek ci élection présidentielle yu ñu doon ma ci atum moom naka la ñu daal di xam ne waat bu ñu jógee ko foofu dañuy wax rek ci kàddu yi nga xamante ne journaliste d'investigateur bi daal la mu daal di xam ne rek moo di ne def ab opération ngir arrêté waat ko ba tax na nag journaliste bi nag la mu daal di xamle waat rek ci boobu lee mbir nag moo di dañoo jël li nga xamante ne moom mooy ay machine ordinateur am ay téléphone portable mbir mu nu mel nag day pour arrêté waat ko moom nag la mu daal di xam ne rek moo di ne fu mu tegoon tànkam tey foofu la ko gën a tegaat ndax dara ñoru ko rek lu dul république ak métier bi nga xamante ne rek mu ngi koy exercer ak noblesse moom nag la mu daal di xam ne rek moo di la mu xamal état bu Sénégal bés bu ko waxee rek ñaw dina desum xam wala musiba wala yuuxu jukko fuñ ko foogeewul loolu moo waral nag ñu daal di jël ordinateur am jël ab tablette am jël ñaari portable am moom nag ba tey ji rek la mu daal di xam ne waat rek bu ñu sikkandikoo ci moomu lee mbir nag moom Pape Alé moo di ne nag tey la gën gën a pare rek pour ànd ak sénégalais yi la gën a pare rek ngir xeex lépp loo xamante ne rek démocratie la Macky Sall nag na def lu ko neex waaye dignité bi nga xamante ne nag moom la amoon démb ak bërki démb rek moom la gën a am moom nag la mu daal di xam ne rek moo di kase ku ko yéene nit ba noppi rek yóbbu ko fa kooku yéene nga ko dee moom nag amul lenn loo xamante ne perte na ko ndax nit ku libre la ci lépp lu muy def nee nag moo ko wax te gouvernement bu Sénégal dina ko dégg du ñàkk rek dinañ ci ñëwaat ci yeneen i jotaay xabaar jërë ngeen jëf ci teewlu bu leen fàttee abonné bës cloche de notification ngir amaat yeneen i info